article doctrine la képp ku bëgg a xool loolu su xoolee ci internet bi mën na ko ci gis mais dama doylootul man sama sama sama position parce que damay dégg ñeneen ñoo am na ñeneen ñoo xamante ni am na luñ ci wax lu am solo loo xamante ni man bi ma koy bind 2015 la woon xalaatuma ko leneen li moom mooy euh, président bokk ci walla mu bañ ci bokk man amoon naa ci position mais. lan la woon ci tënk ci tënk rek. non man dama jàpp nii Euh, su ñuy tijji man dama bëggoon ñu tijji conseil supérieur sama article boobu pour ñu ko tijji ko man boobu magistrat laa woon c'était en 2015 nañ ko tijji askan wi gis ci seen bopp man logique d'ouverture su ma ciy nekk doo exclure kenn exécutif bi mais ci république bi lañu bokk président de la république ministre bi mais euh, ñu tijjil ko assemblée nationale ñu tijjil ko société civile bi ñu tijjil ko barreau bi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen loolu sama xalaat la woon xam nga am na ñu jàppee ni symboliquement président waru ci bokk loolu yëpp mën nañ ko waxtaane ba xool man jàpp naa ni intérêt bi du du rek composition bi mooy fonctionnement bi nan la ñuy def ba président su ci bokkee tamit moom kàddoom du mën a am prééminence comme ni mu ko amee nii parce que xam nañu léegi exécutif bi moom mooy affecté magistrat yi nan la ñuy def ba exécutif bi du affecté magistrats yi moo ci am am solo. président pourquoi autant de blocage par rapport ak euh, réforme yu au niveau de la justice yaa ngi koy wax euh, tout à l'heure euh, ou indépendance de la justice dafa am loo xamante ne c'est important vous avez parlé du principe de l'inamovibilité vous avez parlé également pouvoir kii di procureur mais aussi il faut parce que am nañu koy pointer du doigt muy la loi sur la retraite donc loolu tamit nekk ay ay facteurs bloquants yoo xamante ne mën na tere lii di indépendance la justice waaw léegi man yaakaar naa ne yeneen poñu <laughs> débat bi danañ ci ñëw parce que justice bi c'est vrai que justice euh, am na importance bu rëy a rëy mm, mais léegi gis nga exécutif ñoom amuñu intéret yenn wane nañ ko euh, programme président de la république réforme conseil supérieur dans sa composition comme dans son fonctionnement ci la bokkoon point central la ci woon te moom dafa defoon waxoon ci programme am ni justice am moomul boppam parce que conseil supérieur moomul boppam exécutif def ci dugal loxoom mais dama jàpp ni léegi ni mu ci dugalee loxoom moom moo. dafa jéggi dayo léegi. nekkoon nañu sax ci benn léegi nag su euh, fekkee parce que gis nga volonté politique. man article bi ma la waxoon noonu dama dem ba ci fin bi ma ne gis ne li may proposé yëpp nag volonté politique moom moo koy motale. volonté politique bi nag ñun dañ ci euh, rappelé waat euh, ñi nga xamante ni ñoo ñu jiite nañu delloo seen xel. parce que yoon gis nga yoon soo ko naxasalee moom nga fi bàyyi yoon boobu nga fi bàyyi man ku ne ci ñun rek war na am na rôle sànq bi ma nekkee ci salle d'attente bi ah, am na suñu benn mbokk yi ci ci waykat yi ku ku ciy wax loolu dafa ne ñun ci réew mi ku ne am na ci rôle am ku ne dafa war a xam rôle bu mu war a jouer ci réew mi. alors loolu exécutif nag ñi ñi nga xamante ni ñoo ñëw nel ñu jox leen ñu seen baat. man jox ma seeni baat man ma jiite seen réew ma teg ko ci yoon ñooñu nee naa la échec bi may wax sànq nee naa la ñoom ñoo njëkk échec léegi nag ñoom suñu jàppee ni suñu euh, doyadelee yoon ñoom dafay gën a yokk seen seeni seeni marge de manœuvre dañoo jum parce que ñun démocratie la ñu choisir nous avons choisi la démocratie nous avons choisi la république nërmal boobu dana am ay conséquences suba nërmal yooyu ñoo tax yenn réew yi di doxee nu ñuy doxee waaw loolu nag ku ne ci ñun dafa war a te ñun ñii tamit waruñu nekk rek des observateurs ñoo ne ah lii de président la rek mais ñun tamit ñu ngi ci. ñun lan lañ def quest ku ne ci ñun lu mu def loolu gis nga <laughs> Sénégal su bëggee baax ku ne ci ñun fépp fu mu toll. kiy jaay jën ba ci kii na ku ne na ne. man ci état bi ndax den ne mi ngi wax léegi âge de retraite boo xam ne mi ngi toll ci 68 ans olof day wax kii la abal bët xëy na fi ko neex foofu ngay xool su ñu gisee ne moom ñi nga xam ne ñoom ñoo war a atte jox nañ leen boobu privilège mën na gën a gën gën a yombal guerre bi nga xamante ne yaa ngi ko doon wax sànq. waaw mais lu tax ñooñu ñi nga xamante ni euh, dañuy ñëw ñaan suñu baat ñëw di dawal yenn yi lu tax ñu fii di continuer di nekk nit ñi di leen votel di leen votel parce que ñenn ñi dañuy joxe xaalis parce que ñenn ñi dañuy joxe ay teranga yooyu suñu toogaatee ñu xoolaat réew mi ku ne xool responsabilité am parce que gis nga ñun ñu ñun ñu ne presse bi xool responsabilité am société civile bi xool responsable ñun opposition bi ñu xool suñu responsabilité. borom saalihiin at nee na maamam Seyduna Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. boo weddee ni yonent bi mooy sama maam jàngal ayaamul kiran nisbatana ila rasul li tastaqi wasti wala takun jawul qad aradat qawlaka سحاق العقول وابتلت قرائل العقول غير غاغا بيت لاي dem dox di ñëw da ngay bég kenn du moom sallallahu alayhi wa sallam gaaga bayti laay ku bañ ku la gën bul dem madinatu munawwara li tax doo dem madinatu munawwara est-ce que doo dégg gàtt màkka njool màkka rek ngay dégg parce que mbag moo amuloon droit sut mbaggu rasulullah ki ana kan moo fi gën a bëgg yonent bi dama bëgg na ñëpp jóg taxaw màggal sayyiduna muhammad rasulillah ali ma na ni bu daan dox moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loo njool njool Moussa bu la bi dee jege yow ci boppam da ngay gàtt na bee njool ci sa kanam. wax nga wax nga wax mu garaaw xanaa xamoo ni bu ñu tagg yonent bi salallaahu alayhi wa sallam yow mii seetaan boo amee yu métti boo ne ñokkit jóg noppee yu métti ci barke rasulullahi na ñëpp jóg taxaw ñu màggal borom guddi gi muhammad rasulillahi te li ci a yéemee xanaa xamoo ni bamba bu ñu tagg yonent bi salallaahu alayhi boo fi tasoo dootoo amee loxo buy métti yàlla nee na ko dinaa la teral dinaa la takkal garaat bu ma dootul takkal kenn waaye bi ma la kal mawt yëg sa kër rasul soxna addu ay dara samaam rasulillahi lawlaahuma bam ba ma la kal mawti dugg na kër rasulullahi fekk na fa ay njabootam lawlaahuma yeey géer gaa nga bayit laay salla diine malaakal mawte ngay wax a njol màkk ni ko yàlla nee na bu la neexee tey tey nga dee bu la neexee nga dund bër bu la neex mami cheikh na cheikh ay yaa xalifa Muhammad lawlaahuma waaye nee xam nga lu daw yaram na bee ngi wax ak malaakal mawti mi ngi naan ko ana Jibril mi daan ñëw ci man lawlaahuma ya rasulillah déggal mu ni ko asamaani juróom-ñaareel asamaani juróom-benneel asamaani juróomeel ñoom ñëpp ñu ngi asamaan weeru saru asamaanu benneel asamaanu ñaareel asamaanu ñetteel ñoom ñëpp daje nañu asamaanu ñeenteel di teeru saru mboolem buur la ay nii sangu nañu ba set njool màkka ña nga lay xaar yàlla defal la tapi aljana innal jinaana ala tazini yow ma xudumi ruuxi taarika dunia ala zurabi la ilaha illallah daan ni ko daan ni ko jibril mi ngi asamaanu ñeenteel xam nga lu daw yaram njool màkkaa ngi wax ak malaakal mawti ni ko dama lay laaj dee degré bi ñaata la dee dama bëggoon nga wax ma ko ñaata la mu ni ko mu ngi mel ni nga jël ràbb bu am ñetti mètre tàngal ko ba mu tàng ba xonk cur nga duut ko nit ki ba mu seddu guy ba muy téeméeri ràbb boo doon nag table sukkuraat noonu lay mel xam ne kenn du rasulullahi nabi Abdul Xaadir Jeylaani góoru góor ñi. ay kana wujuudu fil wujuud. fukki malaaka toog nañu ci tànk rasul. walam yakul naaro. yeneen fukki malaaka toog nañu ci beneen tànkam. kuun wa sujuud yeneen. fukki malaaka téye nañu benn loxo rasul. weesoo abu sidaar arsaax a toog ci bopp rasulullah yi tim ko bi nee na malaakal moo teegoon ko ci ruuxu rasul borom saalixiina tëdd ca lalu sayyidatna Aïcha mami cheikh Abdul li aji ligi roy ci baram yi ñëw ca um ay nabi wa bul si dara sa xolalaaw nabi tàllal na tànk ya sukuraat baa ngay gañe rasool mani daanu xinaan fii ma si ami ne ñu demee ba ci yàgg sukuraat ñëw ba ci biiru rasulullahi mm. moomoo moomoo moomoo bu ma la doon jàngal njol màkk bi mu dee ba ci yàgg mënatul toog waaye dafa tëdd nii ci pooju Sayyidatuna Aïcha waaye lii ya garaaw na bee ngi jàkkaarloog Sayyidatuna Aïcha malaakal moo tiro tiro gi bëgg yenent bi na def nii ñu màggal Muhammad Rasulillah bamba bi sukuraat bi demee ba metti njol màkk day xool Aïcha bët yaa ngay jooy moom rasool maami Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadal maami Cheikh Abdoul Khadir mu ni yaa Aïcha sabbitnil Muhammad man yaay géeru géeni muhammad rasulillah nabi nga jël boobu ba teg te bopp ma ndox Aïssa sukura daa métti léegi jël loxo yi nag ci mat laa bi sukuraatu nabee ngay métti waa mu salaat saaxu alalaaw géer bi sukuraat demee ba koy gàñe njool màkk naan Aïssa wutal soccu nga dugal ko ci sama gémmiñ gi mm-hmm. waaw waaw xoolal mala Fatima ngay ale samba ña ngay soccu rasulay Aysa ngay soccu nabe ngay sukuraat jàppale ci bi mu demee ba ci yàgg nabi mënatula wax ma nga naan aleykum bi salaati aw ma malakat aymaanukum nabe aleykum bi salaati aw ma malakat aymaanukum nen ne sukuraat bi metti na léeg-léeg njool màkk dem ba xaw a mel ni ku ñuul waaye mënatul dee socc bi Aïssa ci bopp moo dugal socc bi ci gémmiñam léeg-léeg bu bomb ci kaw njool màkk xaw a muuñ léeg-léeg Aïssa bomb ci suuf njool màkk xaw a muuñ léeg-léeg njool mag a xool Aïssa ni ko neel gaa ñi ne ñuy julli te yërëm ñu ñu njabootee ilayka ilayka ilayka ilayka sadana laymun hakimun salwa sadana diri tadriru sarairu annak wa sa'altuka bi khudmi lati minka ursilat wa bil mursalina murkhisin bil anwar wa bil ulamai amilina bidin wa bil awliya wa sakhiru sadatin rasulai bi wujudu rabbum malaakal mawti nee na maa ngi cim njool màkk Jibril nee na li may doon doon malaaka yërëm naa rasulullah waaye xam nga lu daw yaram darñel socc bi Aïssa di socc rasulullah Aysa nee na damay bomb ci kaw dégg ba yi ni mu rafetee nee na may bomb ci suuf ba ñaa ngi weex daal nee na ma dugal socc bi yëg ni sama waa ji kontaan na nabi dan na wax naan lawla an asuqa ala ummati la amartuhum bi siwaaki xabla kulli salaat nabi nee na bu ma sañoon fu ngeen tollu dee leen socc ñu ne nabi lu tax mu ni socc dina tax doo silmaxa nabi nee na socc dina tax say nopp dégg ba baax nabi nee na socc dina tax sukuraat oyof bu ma leen bëgguloon a sonal dinaa fexe ba suba gu ne tisbaar gu ne tàkkusaan ne timis gu ne ne géewee gu ne ngeen di soccu ah Issa nee muy mu ñag taar ba nga xam ne bu Musaa na wax da nga gis leer ngay génnee ca gémmiñ nga sallallahu alayhi wa sallam alima kuy rafet njool maaka la gën a rafet isa takallama ri annuur yaxruju min bayni sanaya wa ma fi xawli min wasami ah Issa nee ma soccu ci suuf dégg ba ci àgg rek dégg ko mu ni jalaala rabbil rafi we are the man we are yaa bari jom dëgg la dunu daaw dani jeex sallallahu alayhi wa sallam akrim bi man sajadat al-ashjar li ajlihi wa qadat al-anwar shaka jëmalul mawla Aïssa fi may daanele fi may daanele fi may daanele Alima xam nga ndaw yaram Aïssa gëmul ni ah, Aïssa gëmul ni ñoo la Aïssa gëmul ni doon lay dem na Aïssa nee na fi ñu tëb nee na ma yëngal sallallahu alayhi wa sallam nee na nabi ni teg nee na ma yëngal rasulaay nee na nabi ni teg Aïssa nee na ma yuuxu bàyyi nabi ci biir néeg bi nee na caabi ko daw génn ci biti problème bi bi muy génn àdduna fekk fa Aboubacar ma nga Aliya waaye Aboubacar nee gileem gi ma waroon moo ma xamal ni njool màkk génn na àdduna nee na may gis gileem gi jooy nee na ma xam ne am na lu xew Madina waaye ma def deux tours dellu si Madinatu Munawara Aïssa nee na caabi ba dama ko def ci sama poqotaan di waaxu génn Màkka Medina jàpp ni Rasulaay deewul sama bàyyi nangu caabi ji mais li neex mooy bi Aboubacar ni bi caabi ji jàkkaarloog Seydina Muhammad kenn samba keroog ba Muuse janoo Firawna ak kuréelam ca baaru xal suuma yaata mbir ma saf gaa ci ñaani yoonu sa mbiru jën fa wan wan ko sabal boromam foofa xam naa ni Iisa ibnu Maryama ruuxullaay yaa ko amal ay mucjizaatam ba muy def mbir yu kéemaane taar bi di Yuusuf neex baat neex baat gi ci Daawud nguurug nguurug Suleymaan nabi yaa ko dénkaane mboolem la aljana sallallahu alayhi wa sallam waaw may guddi na kañooy musa sayyidil kaw doy ni lele lele lele ali bubu la leen ñu màggal Seydina Muhammad Mustafa sama waa ji jéer jéer jéer a Mustafa mi may bëgg way ay waay Mamadou Lamine tudd na fa hani andi laala ni nakal fadul gani shurafa bi alima Seydina Muhammad mi fa hani andi laa mi nakal fadul gani shurafa bi alima hawaayana محمد وانا عبده المساو بغلن يننت بي يا منال اكما كبغ يا منال جيلن ينن يا منال سيدنا محمد في وادمه يتوه من الفخار جيلن ويلن كنلن تكلين تكلين جوبلين كبتي كاس جيلين محمد سيدي يا رسول الله ماما بنير أكرم بمن سجدت الأشجار لأجله وغادت الأنهار شكا شكايني ويا لله ويا لله dundu daw dani jeex kase bis yi dafa des xam nga yàlla nag dafa mën a segere mës ngeen a dégg feetu maam Adama te pourtant moo njëkk ci yonent yi mës ngeen a dégg feet buñ ko feetal Adama ah mës ngeen a dégg feetu Moussa yàlla ni Aïssa Jésus ginnaaw yow yaa mujjee ñëw yow yaa mujjee ñëw fexe ba déclaré sama waa ji yow dinaa la may ñaari bés dinaa fexe ba may la 24 ak 31 décembre waaye waa ji nag li ci des yëpp mooy borom yéen ñi mujjee ñëw nag du ngeen am. moo tax Jésus am 24 am 31 décembre ngir li mu jegee njool màkk <laughs> jaaykatu parfum bu la yaayal sax bu la nuyoo xeeñ ah, nee ko koy Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi si plateau bi yëpp euh, kontaan nañ ñoom itamit kontaan nañ torop nii lañ